asalaamaaleykum team polygame <laughs> man la Mariam Sarr depuis le Texas c'est ma famille ñu ngi leen di ziar di kontaan ci euh, le fait que ngeen choisir ñu comme ambassadeur léegi nag numéro baa ngi noonu na ci ñëpp jàpp na ku nekk dugal participation merci pour tout yàlla ngeen ñu yàgg bégal les thèmes évoqués important li ci nekk yëpp daal macha allah ay ngëneel la bye bye. bye bye. dañoo ñëwoon bu soxla na àndaama. waaw waxtaanu jàmm ak salaam mm-hmm. rek. Mm-hmm. waaw jàmm ak mm-hmm. di la sant rek di la gërëm. ndax nag fi ne nii wax dëgg yàlla am bu ñu ko tegee ci say loxo am nañ ci yaakaar te xam nañ ne tubar fakala macha allah. waaw di la sant di la gërëm ndax tamit nag nit ak noppam ku ko mën a yor wax dëgg yàlla am kooku kenn gënu ko te nag ku baax nga. xanaa kay dafa fekk ni. des fois day am ay situation yoo xamante ne du neex a sax développé waaye xanaa ñu jéem a xool rek mënu koy tënke rek euh, euh, kii ko Fatou euh, wax danga koy téegal mu téegal rek nga tuddee ko ni nga ko tuddee <laughs> yaa ngi dégg kii suñu doom la mhm. ndax sëy bu xësee ba dugg rek mbokk lay daal di am dëgg la ni ñu juree Fatou Kiné mii lañ ko juree la deret jaxasoo ñu ñëwoon fi nag mhm. laa waxtaan ak suñu doom ndax dañoo xaar lu yàgg dégguñu dara mhm. mu am lu mu ñu wax <coughs> mm. mu am lu mu ñu wax. Mm-hmm. noppil mu am lu mu ñu wax bi mu amee lu mu ñu wax it ñu def nag yëfi ndey ak doom ndax ñoo ko indiwoon. ndax bàjjanay baay bàjjanay baay. Mm-hmm. suñu waree rek lañ am fu ñu dugg di ñëw nag pour waxtaan ak yow mu gaaw mu kii Fatou. xaw ma la mel ni footballeur nii di ma di ma di ma attaqué bàyyi bàyyi sama tànk bi yaa ngi yaa ngi may dégg. lii sax dara nekku ci waaw dara nekku ci ñoo ko jur. Mm-hmm. ñoo ko jur. am nañu droit wutal koy wutal koy garab ndax comme que dañ laa takk xala ah, waaw wax ka da nga koy tuddee ni mu tudd na dëgg nag dañ laa takk xala ñu ne wuti ay garab pour xale bi pour xale bi dañ daal hmm. waaw ndax daal àdduna bi dafa am lu xale yi bëgg a démystifier muy laabaan hmm. te loolu day dëgëral sëy ndax sa jëkkër takk la xam ni moom mii moo jiitu ci yow ñu bëgg koo démystifier loolu moo dul yoon man duma ko nangu déedéet kii tuddul Michel. ay génn ma ci dafay tuddul Viviane tuddul neneen Fatou Kiné la tudd ay olof lañ duñu ay tubaab lañuy laabaan wax. gis nga lii mu wax waxee wuñ ko nag pour dara nag waxee wuñ ko pour dara dañoo wax rek ci diggante njaboot ak njaboot rek ñu xool nu mu rafetee rek ñu defe ko ci. mi ngi noonu. yëf yaa ngi bëgg a piloxo de ah ndax dëgg yàlla dama koo yaram. Hmm. dama koo yaram yow loo xalaatoo. bu ñu dem bu tali ko ay tëpp tëpp ci sëriñ bi yoo am na sëriñ bi ma la waxoon ne foofu la dem dem wutale ko ay bagages buukat kuy mbokkam war nga koo yëram bi bég bu cag moom xam nga ni kenn yéenew ko kenn xalibaal man sama sëy bi sax dama cee demul si sëriñ waxatuma la ak sëyu jàmbur dimbali ma ak sëriñ dewuma sëriñ demaanuma sëriñ bu fekkee da ngeen bëgg léegi dëgg fenn laa demul dara laa ci deful fekkee man dong sëriñ yi duñ man dinañ mën a daw ma de. Mm. gis nga lii amuñu na déedéet fi mu ne nii bu nu yeboo ñu ne say ndey lañu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. ndax jamono tërëdi. Mm. ndax lii judduwaale woo ko xëy na lu la dab la te def def la kii nag kii ñoo fay lépp laaj ñu la benn dërëm. ñoo ko dox ñoo ko wax ndax suñu doom ji jaral nañu ko. bu ko yaayam yëgoon sax mu ko bu ko yaayam yëgoon nii lay def noonu lay nii kay ah, ah xam nga loolu sëriñ bi tegta la méttiwut de pour sangoo lii méttiwut nee na kii ngay jël sangoo ko benn sang soo ko sangoo benn sang. dégg nga boobu boobu tegtal bu yéex lu ma. noonu la di waxul lool dani day toog ba suuf sedd. waaw mu dem ci Sële ba yoon xam nga Sële ba yoon. Ah, waaw waaw mooy ñeenti mbedd yu daje. waaw waaw nga toog ba suuf sedd ay 3 heures du matin. Mhm. waxuñu la nag nga yàkkamte xool sa jabar mu jongo ma ba nga sangu ko 19 heures. Mhm. di dina dina jaaxal ko defaat dootu ko defaat nga bàyyi ba dem sangu boo ko sangoo ba pare mhm. na fekk sa jabar xaar la ci digg lal bi. bu ci digg lal bi nga jàbbante juróom-ñaari yoon. xam nga ni yow sa wëriñ du gën a koy dégg. wëriñ wëriñ du enchaîner rek na enchaîner juróom-ñaari yoon. Mhm. ba ko juróom-ñaareel. mu ni ko ah fi du dem. nga déglu si mi ngi noonu. képp jafewul de jafewul yomb na lool. bu ko sa yaay yëgoon nii la koy defee. Hmm. ah li may def du ma ko wax ndax man moom yàlla dimbali na ma ni sama xol moo may toon ma mën a yërëm nit te new ma nit lu metti di ko daal te ma am si solution am si pexe. yàlla dogal na nag li ma ci doon mën yëpp def naa ko def naa sëriñ samay ñaan ah. te lii dama cee sincère sincérité laa ci demee ndax lii dafa metti ku mu dalul rek xamoo ko takk xala lu ko gën a naqari ah sama doom lañ takk xala mu jox bu laa koy jox pour mu utiliser ko yàlla dimbali ko lii ko dal te li ko dal dafa metti de bu doon takk xala bu ndaw bi ñu ni waaw mais bu mag bi jëm à vie bi nga xam ne yow tant que jugoo ay dëkk ak dëkk dem fu ne ay vingt sëriñ sot la lu dañ. léeg-léeg ku la ne buuloo ko dal. waaye xanaa ne ma ñu seetal ma ci ndox ki ma seetal si ndox la ma seetale ne ma kaa bi nii la demee ki ko def nag ci kàttanu yàlla mbaaxam man mi na maa naan ko coppet weer ko nag ni géej ci kër gi bu boobaa moom kooku moom bu yeboo mu xam ne kër gi pare na. maa ngi def ay recherche jox nañ ma tetal te dinaa xam ki ko def doom buu mii daa mel ni sama biir bii la juddoo nga la li ma la wax déggoo ko déedéet ko de ma yow buu damaa mel ni man maa ko nàmpal ndax cofeel gi ma am ci moom am na yu bari yoo xam ne nag yéene mukk da ngay mel ni man man daal day mel ni dikkatu maa ngi day njaay beneen beneen personnage laa yor doo frère Iblis doo sœur Iblis génnal ci li nga ne jullit nga. mais man defuma dara. mais damaa bëgg combat bii ndegam kii baa baaba moo jug ne nañu nañu defar xale bi nga jug yow it bul xeeb say sarax combat wee du ko def dewuma ci sëriñ. am naa ci droit waaye nga jël sarax. xanaa boo jëndee bi ñaari mbuusu soo wala ñett tiflis yi xale bii li ko dal nattu bi yàlla na dañ ak jàmm. waaw Ndeye Ndiaye ku ne du ma ko ñaanal dewuma ci sëriñ yéen daal pour ngeen dégg dara cekkat leen ma ci li ma ci man. ngeen baal ma mais da ngeen ma tooñ. maa ngi ci jàmm. Oh. waaw dara dalum yaa ngi maa ngi am ay quelques problèmes de stress ak day jàll. stress ngeen toog def seen dialogue ku wax jox sa moroom mais nekkul na ci mise en scène ak benn ton bu vulgaire. Eh. waaw ah. ruus naa leen nag. ma tax bëgguma leen jàll benn mot bu déplacé ki ne yow laay waxal nga wax ak say bàjjan man kilifa la hmm. kenn du ma taaj naan ma danga naan dunga ak ay wëñëlañ ak affaire yooyu détail yooyu bëgguma bëgguma tuma dégg moo yu mel tooñ nga ma trop nag parce que li ñu waxoonte woon man ak yow ci biir néeg bi waroo ko woon génne ba muy dem ci biir mbedd mi ba nga koy jox ñaari espèce su personnage yi ñu eh, koy andi eh, eh modéré sa langage de ñun duñu waa mbedd ma te duñu ay li may réglé ak yow nag dinaa oh. ko réglé ak yow mais ci biir la du lekki butel bii ñoom ñu ko fi andi nan ko fi jëlewaat xamuñu lu nekk ci sëy ndax mosuñoo sëy na di eh. jënti ñoom am sëriñ bu leen jox ay saafara ñu wuti jëkkër may dàq rek yow naa ko rek. ñun bal dalee sëy du tay. waaye kii ñun bal dalee sëy du eh, tay. Eh, eh, loolu jëru ko réew na de. kii di xulleeku mel ni ku jaan maat. woote ma fi pour ngeen dem ba Maajoor. non non dinañ jox ko maa ngi dégg Ndeye Ndiaye mi ku ko rek leen maa la wax. Hmm. yow ku ne xam na ne doo def dara ci zéro. du ma def dara ci zéro. yow yow. allahumma salli. yow ana fir dingati. garaaw yow doo def dara ci neen. waaw yow sagam yaa mën a rocceeku ndànk ne da ngay dem seeti ji sëriñ te ñun ñi waxuñu ko. yëguñu ko ba may ñëw dinañ jox information loolu la ma def bërëng bëngë bërëng bërëngee ma ne fataaya looleen ma def dama leen a wax ngeen toroxal ma bu ma ne toog ma jug man dox ci wax ci dugg samay oto paas jël dugg naa auto bu ne saret laa mujjee ndax mooy dem foofu fi ma waroon dem retiir man bu fekkee nday njaay yéemu ma man bu fekkee nday njaay mii man yéemu ma man lu ma leen wax te bu ko gëm léegi xam nga lan beneen information bi mooy ngay nii lu naa ñu laa lay tegal carte su table baa xam nga ne dépense bi léegi ci loxo sën lay jaar. Ah, loolu ay wax naxa sama <laughs> jaar na fu mu war a jaar ah sën mooy taawu kër gi nag mooy taawu kër gi de c'est normal kër gi moom waree am lu waa tey c'est normal. kon yow tey nangu nga jéeg bii ci biir kër gi jiitu la fi ñu la jox dépense. amul problème te yaa ko nangu. je valide. Ah. gis nga Ndeye Ndiaye doo def dara ci ci gratuitement. yow bu fekkee nag 5 millions bu yee passé moo tax fi mu toll nii ngay ngaf-ngaf fi mu toll nii bëgg a jël bu def ko di ko défendre ah nday bi baa xam nga ne xaalis génn ci bii bii xam nga ne génn ci xam nga loolu. man tey sama xol laa deme man yërmande ak ak njur man xaw ma kuy nangu sën di joxe dépense mais man astu nangu ma ko. ab dundam sax daal yéen ñi yéen a waane sama jëkkër bu ko xasati yow mii yaay xuleeku ne ku ñu dénk doomu rab sa yoon nekku ci sama jëkkër yéen lan moo tax maandoo leen ba may ba leen di teg fee dama ne leen carrément ngeen ñëw ba ci kanam ngeen wax ko lii moo tax koñ bañ dëkkoon ku ñëw taaj leen waaw nii ngeen mel xoola sëyi woo leen bu leen ma yàqal sama sëy man fii ma toog nii fii laay dee yéen lii ngeen def ni doo ko jën seen boobu ngeen wuti jëkkër li mu leen wax dëgg la wala ngeen maa teg bët mana santuma leen di jël leen ngeen yóbbu ba ma leen wax ci sutura laa leen ko waxee pare nga wax nga ba pare di nga xam ne ñoo la njëkk a juddu ñoo la njëkk sant sant wi te ñooy sa bàjjan ñoo la gën a dëgër bopp parce que bu fekkee dangaa wëraalu sa bopp ci mbedd yi ci xale yu góor yi ba xamatoo looy wax ngay lay lay amatu fi gis nga tëdd gii force la ku ñu dénk doomu rab ak ku ñu dénk bu mongol ak bu vampire laa ci yamale ndax xam nga yow wax wax kat nga wax ngaa wax a wax ba sañatoo noppi waaye lii moo lay tëdd par A ou B gis nga suñu famille amul ñu maye la ngay temp di di mel ni koy dox ci ay nen amul lool de da ngay tëdd par force. ah eh, eh, eh. du famille. est que mën ngaa noppi. du noppi mën ngaa noppi du noppi ah. ñun lii ñuy def nii dañ koo war a def def ko la leen saal a laaf en famille xam man loolu intéressé wu ma ci ah, intéressé wu man sëy naa tëdd ci wetam rek yéen loolu ngeen yéen loolu yéen affaire awra moo leen neex man loolu intéressé xam ni yow tey ngay xam ni lépp ndax di nga tëdd yow nga tëdd ñu xëy suba yow de lu ne mën nga koo créé nag waaye ndaw bala nga koo créé di nga wax lu set wécc xale bu toog ak bàjjanam naan leen affaire lu may bañ a tudd xanaa réew a de fii la mën a yem xam nga lu ma la bëgg a yëgal man kenn du ma yaakaar ma gis nga fat ki ne boo tëddul ma xam ne li bopp maar lay tëgg dara du ci rege yow da ngay tëdd wala ma dóor ma ñëw fii dóor la ba commencé ko samedi bi di ñëw ba ci ba bi ci topp di nga tëdd ambaje ah, a ah, mbi sa xel da cee yewit sa xel fekkee da cee na jëlal ma may la ma loolu intéressé wu ma loolu taxumaa dugg ci sëy ma damay sëy te yàlla rek tax ma bëgg sama jëkkër nag bàyyi leen ma tout tranquille nangoo man nangu ma ko man sën du ma du ma jox dépense lan moo tax nday yaay man sën du ma jox te sën jeeg ci kër gi may jeeg ci kër gi sama dépense sama jëkkër a koy jox loolu moom dafa leer. yow kañ nga gëj a teg loxo. yàgg man de man xaaral ma nopp waxal comme da ngaa mën bay wax rek. kañ man baba ma gëjee may ñaar dërëm ñu ma jëndee menthe yàgg na. Mm-hmm. Mm. xanaa du maa gëj a teg ak ba loxo. yow kañ nga man de dinaa leen wax ñaari baat lu preuve ngeen bëgg. waaw leen jox preuve. xam nga lu may rey ci yow. sagu doomu ndar ji nga nekkee <laughs> man nag ku ne xam na ne sama dëgg duma ko nëbb ba yorul lu mu joxe yorul lu mu lekk yorul lu mu naan pour yéen man nag xaar yàlla def na ne sax mosuma xaar ci moom dërëm yow doo bàyyi may bàyyi boo génnee yow maa dimbala wala xëy man ma bàyyi man dërëm dama fay teg yoon bi nga génn ñun après ñun ñu génn ñu toppalante ah, léegi war naa yoon bi génn leen bàyyi. non non yaa yaa yaa mujj. yaay kii jiitu yow yow daal dem bu yaam yaay dem. ma ne yéen kii jiitu yaa mujjee dugg ci kër gi. yéen yéen kii jiitu. <laughs> kon kan yéen. ah yow nga fekk ñu fi ñu ñu génn. Eh, kii génn dee safara sama ndey ah, dafa bëgg om. yéen kii man yooyu yëpp. om dina bëgg om tëdd day ah. Mm. yow ak Kiné mi yàlla def na ni bu fi ñëwee ba léegi amaguma occasion teg leen ngeen waxtaan tey la ko yàlla dogal dama leen def sama ay doom yu ma jur ndax sama doom moo leen di denc te yéen a xadi kepp yemale képp a yem ci man surtout yow umu laa yi gën a waxal du tey nga ñëw ci kër gi yàgg nga fi xam nga li fi xew xam nga ni kër gu mag neexul a sëye ku nekk sa tempérament ku nekk ak sa jikko di nga gis ku la bëgg dinga gis ku la bañ di nga gis ku lay wax dëgg di nga gis ko xam ne dalay manipuler la rek moo ko ci neex mu bëggoon yéen ñaar ngeen àndandoo doon benn te xam ne wujje du dara yàlla moo leen boole wërsëg sëy nag neex na neexul damay dégg sax ñu naan sëy xare la waaye man nanguma ko ndax sëy du xare kenn geeru la kenn fii gis nga jëkkër boo ko amee danga ko def xarit mu doon sa complice doon sa confident ngeen ne ci jàmm nga may ko jàmm may ay mbokkam jàmm may sa ay mbokk jàmm kii nag bu ma koy def rak boot ko rogganti ko mu topp sa gannaaw lu ngeen di def ngeen ànd defandoo lu ngeen di wax ngeen ànd waxandoo ko may seen jëkkër jàmm ndax loolu kat bu amee moo leen di jëkk mu bëgg nag yow it ki ne kii sa mag la nga topp ci ginnaawam boo ñëwee nag nga def mag looy def nanga tàggu loo war a jënd wala sàngam si ñu nekk mag sama nañ dem jënd nangam wala nañ def lii ngeen àndandoo am seen jàmm may seen jëkkër jàmm loolu day tax sax ngeen gën a am wërsëg day yaatal wërsëg hmm? man loolu laa leen doon wooye jàmm daal laa bëgg ci kër gi jot naa fee nag dégg lu ngeen fi jotee defante yéen ñaar ay affrontement xaw ma nangam dama ko dégg ni waaye dama leen di ñaan bu mu amati xëy na erreur la woon wujja dafa metti ku sañoon li nga am doo ko bokk kenn muy man di keneen man mii bi may doog a am wujju metti na sama xol dong la jigéen laa te ku bëgg fiir d'accord naa ci loolu mais dafa am defini dof yoo xam ne nag man defini dof sax laa ko tuddee parce que bu buñ la wutalee wujju nga def ay defini dof di tëbakati dal xanaa xamoon ne ku jëdu dara lu dul exploiter sa faiblesse morom gis nga sa wujju bu xamee la naqari dee nga man li ma naqari amul kenn ci kër gi ñett ñi may wujjal ni kenn xam fi lu ma naqari lu ne def nañ ko danga ji gis ku taxaw wax ak man ba dóor ma ci bopp wala dara ngeen defan damaa tàppet gisuma koy ragal kenn ëpp ma ci doole waaye nag dafa ni man dama xaju ci ay animosité man yu ñàkk fayda ba ses yooyu xajuma ci man dal jàmm laa bëgg moom laa leen di woowee dégg naa li nga wax waaye xam nga man ni ma mel nii noonu rek laa mel man foowuma li nekk ci man rek moo nekk ci man te ba ma bañee ba tey nanguwuma kii mësuma koo nangoo rakkoo te duma ko mësa nangoo mu doon sama rakk parce que sikku moom dara séyaan la ci kër gi may séyaan ci kër gi dañ koo takk dañ maa takk waaw gis nga nii nag dangeen koo xamul barki bi moo njaay lu ma waxul da koo fàtte mooy suñu joti bopp xamoon naa ni bu dina la ko wax lu ma waxul mbaa mu def ma ko xadi fekkee na ko da koo fàtte mën nag moom ni ma mel nii rek laa mel man du ma dina li nekk sama xol rek nekk sama du ko bëgg te du ko mës bëgg. um àdduna du ni de. mu yàgg naa laa woo fu ne yàgg umu sa xol bi bës ko umu del maslaa kii ku ko xool xam ne nitu kersa la de ah eh, yaay baal ma àq baal naa la yaay booy baal ma sama xol a ngi jox tàq sax ndax man damay xale sax musuma am xarit bay fawaani jummaa noo sax du ma jooyloo sax eh, may ñëw fii sama yaay sax dafa bañoon ndax xelu xale bi ma yorte xaw ma dara ma ñëw ci kër gi bu ma jàppal umu comme sa mag lu mu def rekk neel waaw umu tamit fekk naa ko fu ne mag sama sax laa koy woowee di waxtaan ak moom mais heure ma waxtaanee moom rekk umu mel ni sauvage di ma rësati ma toroxal di ma ñàkk na sa yaram di daw yow mi kii ku ko xool xam ne woote na jàmm. su bëggee sax yaay mën naa ñëw léegi baalu ko àq. Eh, ay ma baalu la àq nekk ci jàmm man xaw ma lii xaw ma lii ma ko man xaw ma ay mi yaay booy bàyyi ma baalu ko àq mu wax ji jeex aw ma benn problème. bu sa yaram dawul dara dootu tawat sa yaram léegi nag xam nga lu mu wax ci mu neexal naa fu ne wax naa fu ne lu nee nga lii nga woote yaa xam bu ëllëgee lu la ci am nga jël loolu wujje bu technique laay wujje ak yow wujje bu bëri tactique yow xam nga ne wënduwee ñu boole mais bés bu pënd bi jibee ku nekk jaar yoonam tànk lekkuma la ba nga ceex du la may jàmm nangu naa nga lekk ma de waaw yow de kenn du la gaaw a lekk kër gi dinga yéex xëy di sangu set te rek doyal naa de waaye yow commencé goo te doo commencé j'aime ton mari ma nga ne salade du moroom ñox ko wedd vinaigre sa jëkkër nee xeeñ nga salte nga xesaw nga naa man xet gi gilli ci ummi xaw ma ban côté lay gillee man ko ah xoola bopp bi peut-être bopp bi la dul shampoing ma ñëw fii sax yërëm ma Ndof lu mu waxoon du pour trois jours la. waxal ndànk. ma ko defal une semaine. wala dix jours. chii um um bu fi indi bu indi embouteillage dix jours c'est trop mais kii déjà dafa sonn damay wax ak dix jours mais il faut savoir que nag booy bi sama doom la nag aussi ah ah non non yaa ngi bëgg a ëppal de dix jours ëpp na de bàyyi rek bu ñu mu ñaamale ko foofu. tonton Cham yow kan ngay dimbali man ngay dimbali wala kan. mais yow laay dimbali raison de plus da ngay xam ne aussi sa jëkkër la fii sama kër la kii sama doom la mun moo fi def dix jours yow tamit quand même c'est trop. kër gi yëngu na da ci ñaari fan gis nga dañ ma commencé def ñoom ñëpp bett dinañ ma. guerre bi nag moom na saf mondial na saf sap yor naa fi cent mille yoo xam ne dama la koy jox après. nga ni yor nga fi lan. yor nga cent mille yu taxaw taxaw xobbet nii nii nii yor nga ko. joxoo ko sëñ bi de sa paas la. cent mille francs nga wax yow ah non kii xool waxuma la sedd mais dama koy gelé gis nga kii xool un an laa jëmee moom waaw at laa jëmee moom booy bi gis nga kii nga set maison la ils sont mauvais ñii baaxuñu yow li ñu la def lépp ah yow daal affaire bi bu ma ci feeñ bu ma ci feeñ de. boo ci feeñee ma yàqule. waaw léegi xaalis bi anam. su damay dugg léegi dafa la envoi bi. tous léegi nii nii nii mën ngaa taxaw nii ma dugg defal la envoi bi mu ne toq. dama ne xoolal na ñëw rek gis nga booy bi ah li ma la ci wax la moo ci nekk un te dinaa la xam ne benn affaire umu xool lépp looy wax wax ko man lépp looy def dee ma ko defal ah jàppal ni man maay sa goro benn goro nga fi am muy man. Ah, waaw fii amuloo fi goro. fii amuloo fi goro. say noon nga fi am. bul waxtaan ak kenn waxtaanal ak man lépp looy def diisoolu ak man ñii c'est des traîtres. man maa la wax lii si nga kër gi dina tàkk bëccëgu nar a kam man maa la ko wax man. bu la ci dara métti bu ñu ànd sax duggandoo ci kër gi bàyyil ma dugg. waaw dama ne man maa ngi ci biir non non man maa ngi ci biir. da ngay da ngay génn. non damay dem defal envoi bi. waaw ah, maa ngi ñëw dugal rek waaw man maa ngi dellu sax man sama nekkoon. ne defu woon naa ni kenn warul mën a dugg suñu diggante bu ko yàq yow man ñaata yoon laa la woo di la woon mbëggeel gu ma bëgg ci yow mais man xam naa ki ne suñu diggante kenn la muy sa yaay yéeti na sa nopp wax la lu ne waxam yooyu muy façon doo xam naa sa xam nee na la bi nga nekkee xale defaluma la dara dama laa bañ mais yooyu yow boo gisee ni may def ak yow nga xam ni loolu amul sa yaay bu ko déglu bu ko topp mooy sa yaay nag waaw mais ëppalewu ma ci yow waaye luy yàq suñu diggante rek lay dox hmm. ci ci loolu rek lay dox ah yaa ngi nii sa kii boobu araamal naa ko nii bi nga ko fi jotee lépp moom mbir mu doy na war papa yaa ngi juum te yaa ngi tooñ maa ngi tooy. man sama yaay deful dara man maa fas yéenewul liggéey te kër gi di ko araamal man loolu xalaatuma ko sama yaay li mu def man maa ko sant. kër gi yow noonu yow war nga xale bu day néew nga naan kër gi ku ne da ngay yor sa xaalis bi naan da ngay comp ku ne nga jox ko te ñëwoon ni sa baay mi ngi nii man xam naa ne xel moom jógewul ci yow xelaloo ko sa bopp moom moo la ko xelal man xam naa lépp lépp xam naa ko waaw. daal man su ma sañoon nga bàyyi wax yooyu yëpp ndax man daa am neen lu nekk sama xel. lan mooy nekk sa xel. Tanson keroog maa ngi moom doon nañu waxtaan. Mhm. mu woon ma benn site. Mhm. benn école au Sénégal sax yaakaar naa lu tudd. waaw temps maa ngi leen di suivre di leen xool te li ñuy def man moo ma gënal léegi nag damaa bëggoon. Euh, maanaam dem jàngi foofu. waaw papa doo xaar bu ma pare. di di di ayul eggali comme mi ngi lay woon si yow loo bëgg xam naa fi nga jëm. inscrit naa ba pare. yow dangaa dofal lu la jot. waaw papa doo may ba ma pare. la jot. papa xam nga ne man sama bari bariwul dama bëgg su ma nekkee foofu candidat samay diplôme gën a yokku nga xam ne dinaa moo pare dinaa am liggéey bu gën bi ma am nii. papa bu gën bi dem nga fenn fay ko six cent mille francs yow dangaa dofal lu la jot bàyyi sa liggéey bi fii ñaata som ñu yore diplôme jàng ba yéen si seen i kay ne fi di taxawaalu ay bachelier ñu licence yor licence ñuy maîtrise. Ah, yow nga dem ba am di nga fi jàng ba pare nag bokk ko nii comme mouchoir bi taxawaalu moom doo xam fooy liggéey. waaw dama koy boole damay liggéey ba wàcc yow mayoo ma sax ma àggale papa. yow professeur yooyu ñoo lay may ngay. cours en ligne la papa ma la nga may ma ma àggale. cours en damay liggéey ba wàcc concentré wu ci léegi su ko defee dinaa gën a am ay diplôme yu bari léegi man. Mhm. examen yi xam nga mhm. instant bi inscrit naa. léegi su ma kiiwee su ma su ma commencé nii. Mhm. ba may jàng ba commencé examen yi commencé nii dinaa nekk candidate libre. nga xam ne sama diplôme day gën a yokk papa yow naa di tewoo dara. wax nga de waaw ba nekkee candidat libre mën a bokk ci examen yi. waaw boo amee diplôme la wax nga diplôme yu ëpp yi xam nga man sama diplôme yi bariwul damaa teel a bàyyi jàng. wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. ndax sax seen métier mi sax moom am na anglais. non hmm? non man dama kii yooyu man aw ma benn diplôme. ah métier mi daal léegi ah, dafa du tubaab rek daal laaj dégg anglais. waaw euh, client bu nekkee ñëw cliente bu nekkee ñëw du dëgg. waaw liggéey moom moom baax na. loolu laa xalaat nag moo tax ma kii xalaat loolu. waaw waaw waaw kooku sama léegi juboo nañ. non non liggéey bi moom du ko bàyyi. waaye lépp daal bul fàtte ni. salaamaaleykum. maaleykum salaam. papa Ba. waaye. Eh, ma chérie. <laughs> ça va bien. Ah, yow moom doo toog benn yoon ma gis la sax. billaay man kay xam naa di nga ma wax dara. ah jàng bi la rek ah am solo la ak liggéey bi aussi. liggéey bi la. ay comprendre nga ma rek ah comprendre naa la chérie sama chérie. àdduna bi di leen du hasard. xam nga ni jabar ak njëkk yi lii am na. bu def na lu ma bëgg ko. ci jàmm. ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci kontaan nañu bu baax. kontaan nañu kontaan nañu bu baax. waa fan yi comme que Choco dafa waxoon ne duñu xew. léegi euh, sama bàjjani ginnaaw suba lañ fi ñëw. Mm, choco kuy Choco. Choco hmm. bu. ah yaa koy woowee chocolat yéen de booy rek fromage bi la ngeen di wax. maa koy woowee choco bu may woowee bani. <laughs> <laughs> ko boolee bu neex. <laughs> léegi. Eh. Eh, dama doon laajte ndax fekk yooyu bruit du la sonal wala dara daal na sama bàjjen nañu ñëw indi teraanga. nga xam nga ceet gi jox ñu leen woon dara. Mm-hmm. léegi dañoo war a ñëw nag ren si première waaw loolu waaw première njëkke moom lay ah, looloo ma war. loolu rafet na waaye nag bu leen fàtte ni ah. baay baa ngi de njëkkee jëkkër ak ñëpp seen bàyyi ngi baax di ngeen ma sóoraale. Ah, kenn waxatu ko nag. ndax ah. coow li coow yaa ko waral. ah incha allah dañ la indil ay neer ba pare teg ci li nga koy ñawee jox la ko. wuy ma gis nga li ma yor ci jasneer sama armoire bi lakk jeexalu ko yéen dajale leen liquide rek nu mu mën toll bu dee deux cent mille ngeen jox ma ko man dinaa xam ni may taxawee. <laughs> waaw waaw mais papa teraanga day am jëmm te te tissu yi moo ëpp jëmm moo tax. bari leen ay jasneer ak i mbaseris. ah moo. lay lay la laa. papa daal garaaw suñ ñëwee rek dañ ko defee ni mu gën a rafetee. waaw léegi comme que guddi moom mag du lekk lu diis. te du lekk lu niin aussi maa bëgg nga wax ma lan nga bëgg léegi chaque guddi ma togg la plat bu oyof nga fanaanoo ko dégg li <laughs> loo indi ma lekk waaw wax ma parce que loolu moom maa ko gérer benn jéeg doot la togg lu du man sa loo xalaat baax na incha allah léegi sa régime bopp laa lay wutal ci kër bi <laughs> d'accord papa baax baax maa ngi dem baax na ok ma chérie waaw ci kanam ko loo kii rek baax na dina baax ah na maa bëri jës neer yow papa yow lan moo tax nga mën maa teg gàcce. ana gàcce gi. yow ku la wax kii yor na 200000 nga koy facturer ay 200000. ay jasneer la wax de xam nga benn jasneer lu muy jar benn jasneer bu nekk rek 70000 75000 te ay jasneer la wax kon kii 200000 teg naa ko ci place am de. man yow man papa yow sa jikko neexuma dara. ah bëgg xaalis boobu ba yow ku bañ xaalis waaye yow rek leen kii kii kii sama jabari dooma war maa defal fii ku ma solo nag maa war a solo man lu man ñeenti ñeenti bataay yére ah baax na. Ah.